responsable dara moo tas moom moo fi moom moo aye loolu def dañ ko yàqal day mel ne man dama koy day mel ne man déggoo nu ñu wax dem nañ fële ne ko mille cent cent bii lañ ba mille non non dama indi dara non xam nga amuñ amuñ lu ñuy fay on est en politique yëpp yi xam nga naa ko ne xanaa ma dem ministre xanaa ma dem ministre ne ko ñii njabootu Macky Sall lañ jéem a jàpp c'est la première fois man li ma ko déggee lan laa parce que ay nit ñoo dem coordinatrice ah, départementale des femmes financement daayo joxuñu ko kenn ñoo ko tee lekk ko seen yu ren yi nag dañoo bëgg ñu jox ko ñu ko moom loolu lañ soxla financement yi nañ ko jaarale ci yoon financement yi weesu jaarale ñu ko woon ci yoon déedéet déedéet dañu ay jeunes lañu ay femmes lañu ay jigéen lañu. c'est bon c'est bon allez allez c'est bon.